da nga lu mu la waxoon waxoon naa ne da ngay commencé woor ah wàccal si suuf te nga ñëw xëdd laa waaw anta moom bañ loolu bañ mbëstan na xanaa xamoo ne far yi maa ngi moom neexoowuñ xamoo si dara waaw suuf nga ñëw ñu xëdd laa limon limon waaw ñëwal xëdd defar naa xëdd gi ba pare doo ñëw balaa ñëw salaat waaw ah, yaa ngi may dégg kon baax na jëlee sa loxo day jot. waroon naa man mënuma woor. dam ne la di woor bu dee benn fan sax ba jox ko yàlla sunu boroom ah. ah li ma daal hmm, nijaay dinaa si gis nag xamal ni loolu la. lu ma si gis lan. nee naa la nga jéem. la kii nga ni moom mbësën na mbësën na moom du du du yeewu xëdd ba waxtu yow mais lii kafe gi dafa mën na mu suukar nga ko nga ko moom sax dama salaatu waa nga ñëw sax mu dëgg salaatu la dinaa xëdd da waaye goo moom wóor lii du tax doo wóor gaaw nga naan ndox loolu salaatu la de gaaw gaaw yow salaatu la de. walaay ba suba. fooy baax. bu ñu la ma bàyyi dama naan ndox salaat waaw waaw nga ko fa weq yu naataal waaw salaat bi daal yàqu naa waay yàqu naa waay salaat wax ah ma jug yeesal rek daal di daal di dem ba jug yeesalaat rek fas yéene julli saxal yéen yi la yor ah yow mi soppi nga jikko de xam nga bii ñëpp bu la fekkoon ne ngeen nii nga nekk ci àllu mala bi di bàyyi xeer gi wuti keew di nga xam sa bopp ana bàyyi su yaa ngi saaga de. jox ñu cër. déggal rek lu ma la wax. kii benn cochon la waay. Eh, abu ah dafa dafa yabaate. lu mu bon bon sama soxna woon jox ma cër. warul mu fee ñëw naan dara bàyyi suba boobu ba léegi mu ne fàttali wax dama dafa wax ak. mu waxut ak yow mais yooyu yëpp bu ko ci wax. dama laa respecté voilà. bu fekkee jigéen daa wut suñu jigéen nga wax ko. jigéen du dox suñu mais nag kaddu gu teggi néew. fa laa yem. te it yooyu fi ñu ma fi sax ne nii problème mu fi indi soxla yu rëy ma fi indi sama kër gi toj soxla mu fi indi man sama waaye su ma amee ñàkk rek gis ah Baye Dieng kat jumbi na tey waxal rek ñetti fan a ngi nii. ma man ak sama jabar mbel ka yu si suuf laay fanaan. li nga wax dëgg xaw ma lu mu doon nag. xam naa mbel bu baax. wax ma dëgg de soxna su baax nga yor. yaa ko jëlee ji woon. maa ko jëlee ji woon. waaw xam naa mbel. waaw yow it xam naa la. waaw xam nga ma lan nga joteeg mbel xam naa la. waxal dëgg ci. keroog nee naa ba ñu fi sa kër keroog ba ñu indee teraanga gi. ba mel ñibbisee ba léegi ñu lekkal tiraay ñu ñibbi ba léegi sama maam jubóotuñu neexul bàyyi njaga xam naa la bu baax xam naa mbéy maa demoon fële dox lépp mu sotti waaw sa jàng bi noonu nga kàccooree te gis nga keroog ba ñu ndogu fii dégg naa dégg nga lu la ñag bi wax du dégg ma ko bu baax yërëgaay kon yow yaa nekkul ci yoon te man sax man damaa damaa talut gis nga lu la wax moom moo ma xuri du nga sama soxna yaa ngi ko fekk su suuf si ma ko laaj mu aj gardam waaw man mii tamit gazalika lu la wax moom ma xuri ci problème laa def fan yëpp maay def restaurant bopp damay tëdd dama suuf sax laay fanaan te jooy gi nag fépp la ah kon jàmm dalatuñu ah jàmm la nu mu la dalee ñàkkee dal noonu la ma ñàkkee dal te ñoo marché takkee brassard rouge foo koy marché foo koy marché très question ma jox la idée ñëwoon xam nga ñun mag itam géwél lañu lu ne xam nañ ko dëgg ñu wuti ay ñaareel teg ci wet gi ndax loolu dina ko saafara di baa ay ñaareel teg ci wet ga wax ji loolu <laughs> loolu li nga wax idée la nag waaye na nga préparer sa bopp parce que dima da dara eh. ba kër nag yoru ma tous am ne yoru yu dërëm ma réew ba us ba sa soxote gi nga nekkee fan yi nag lan mooy soxor jox ma lépp yuruma li la waxoon <laughs> yow kii nii lay woore woor julli ak wo jaamu yàlla nga def may may la pain lekk gaawal. xëy lan la ñuy wooree. yow da nga ay mala nga ne. bu dee koor gi li ma la wax da ngay woor moo tax nga tàng nii. waaw su barki mi yaroo ko. ne la bàyyi kii yow yow doyoon nit ñi fa gën a réew. sa grand mel ne ku sol mini. bàyyi kii nga mel ne petit yoro. bàyyi ko waaw ci vrai imbécile la bàyyi. kan yaa ko gën a nekk mu ngi ni waxaat. waxaat na ah déedéet déedéet déedéet yow lu ëpp tu. waaw waaw waaw. daa tabax boo xam ne dama uti ndox xoolal ba xam ne daa ngay dox vélo baa ngay yëngu vélo baa ngay yëngu. misal ma kii bis eh, eh, eh, waaye xëfal kii ndox ma waaw xëfal. jugal jugal man nga jugal. sëñ bi daa ngi dóor Eh, lii lan la yow lii nox ba nga duur ah waaye daa xamoon dimbali ñu dimbali ñu daa xamoon lan la lan la ñaata baaraam laa la woon ñaata baaraam ah, eh, lii lii may diis ah eh, tooyal ma ne lan la waaw lan la yow tuuti naan maan ni ma lay chauffé bul continuer eh. day continuer day continuer day dana continuer koor gi da ngay continuer sa koor gi nii la jéemay taxamoon ci xam nga lu may def ne ma lu a def su eh. naa lu may def man doxal parce que man waay dem police léegi loo bëgg bu fi deewee yaa xam sa def affaire waaw baax na yaa xam acca góorgóorlu musuma dem police ah yaa xam na aj doxo doxo doxo yàlla tiif doxo yàlla tiif doxo doxo doxal ah yàlla ci doxal yàlla ci mais ma fi nekk woon nga xam wala bàyyi